ñëw tey ànd ak délégation ñu ñëw ci turu soxna Salimata Diop madame le ministre nekkoon euh, réunion fële ak ay naatangoom ministère de yawo yi yore kaaraange xale yi ñu yëgee tiis bu naqar bi nga xam ne moo dal ci njaboot gi dal ci askan bi dal ci Tiwaawan dal Sénégal yëpp ginnaaw président République Macky Sall naqarloo mbir mi également bokk tiis yi ak njaboot gi ak askan wi madame le ministre mi ngi massawu xalifa général de Tijane mi ngi massawu njaboot gi di leen jaale li ñu ñàkk ak li ñu bokk di massawu également personnel hôpital bi madame la directrice ak tout le personnel ci seen Pastef ak ci seen taxawaay madame le ministre daf ñu sant ñu ñëw fii xool situation bi nemmeeku askan bi wu xalif général mais également ànd ak frère am collègue am Abdoulaye pour bokk tiis wi ak askan bi yëpp kon wu masawu ci turam di leen jaale ñu xam ne xale yooyu tey ñooñ walla njaanu àjjana la dañu ñaan tiis bi mu yem fi lu metti la ba tax président de la mission ba mu nekkoon Union africaine mu gàttal ko mais tam décrété deuil national ñetti fan te loolu dafa bugg rek ñu delloo lépp ci yàlla ndax moom mooy dogal moom mooy maye bu jëlee dañuy nangu muñ mais gën a góorgóorlu gën a taxaw pour Sénégal ñi gën ko tabax jéego yu rëy am na ci hôpital bi tey dañ ko cité en référence tey boo gisee ñi fi jógee ci dëkk yi bëri lañ jógee parce que service bii ñu am fi bu am solo la bu baax la. donc ni ko ministre de la santé wax dañuy xaar ba rapport bi génn bu ko defee ñu mën a saytu mun li ci war ci dogal pour gën a dooleel structure bi ñu def ko ci suñu wàllu maran bi daf ñu sant bu ñu nemmee ko li fi xew ba pare wu askan wi jaale ko sëriñ bi ñu xool nan lañ gën a mën a gungee njaboot yi ndax leen daal lu métti la lu tiis la même personne hôpital bi leen daal lu métti la tiis la dañuy laaj bi leen sur le plan psychosocial

pour lépp lu ñu war ci taxawaay ñu ànd ko ci solidarité gouvernementale su ñu ko président digle pour ñu taxaw njaboot gi gën a taxaw système santé bi gën a taxaw askan bi yëpp. leen di sant doon gërëm loolu wax naa ko tey ñëwuñu pour di jël ay dogal dañ ñëw pour massawu njaboot bi massawu askan bi massawu Sénégal yëpp ndax dal Sénégal métti la. massa également xalif général des Tidiane gis nañ taxawaay bi mu ci am boobu ba léegi ci ñaan ci soññe gis nañ taxawaay bi tam délégation bii ñëw ànd ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr xalif général dafa yónnee ndawam mu ñëw ànd ak ñun ñu dolli ñaan gis nañ taxawaay bi rafetlu na bi monsieur le maire Diop si am na ko ñu koy rafetlu te ñuy ñaan yàlla dolli sutura Sénégal yàlla yemal fi lii yàlla gën a dooleel njaboot yi may leen xolu muñ ñu lëkkaloo comme ni ko président santaane ci ñetti dëy national bi ñu dolli ñaan pour Sénégal jëm kanam dolli ñaan pour jàmm am Sénégal dolli ñaan pour njaboot yi yàlla may leen xolu muñ et gouvernement lépp war ci taxawaay incha allah rawatina jàppale njaboot jafe-jafe yi ministère bi ci loolu lay dox dinañ lëkkaloo ci solidarité gouvernementale pour taxawu njaboot yi taxaw askan